Mark saar fukk ginnaaw loolu yeesu jóge fa dem ca wàllu réewu yawut yi ya ca ginnaaw dexu yurdaan bi mu fa demee mbooloo mu bari ñëw fi moom yéesu daldi leen jàngal ni mu ko daan defe noonu ay farisiyen ñëw ci moom lalal ko fiir ñu laaj ko ndax jaadu na nit fase jabaram yeesu tontu leen ne lu leen yoonu musaa sant ñu ne ko musaa maye na nit bind kayitu pase tàggook jabaram waaye yeesu ne leen dénkaane boobu mu leen bindal bind na ko ndax seen xol dafa fatt waaye ca njaalbeen ga yàlla sàkk na leen kii góor kii jigéen moo tax góor dina beru ndeyam ak baayam di taq ci jabaram ñoom ñaar doon benn kon nekkatuñu ñaar waaye benn lu yàlla takk nag bu ko nit tas bi ñu delloo ca kër ga nag taalibe laaj ko ci mbirum loolu noonu yéesu ne leen ku fase sa jabar takk jeneen njaaloo nga di tooñ ku jëkk ka te jigéen ji tas seyaat ak keneen njaaloo nga bi loolu wéyee ñu ndil yeesu ay xale ngir mu teg leen ay loxoom waaye taalibe ya gëdd nit ñi bi ko yéesu gisee nag mu metti ko lool mu ni leen bàyyi leen xale yi ñu ñëw fi man bu leen leen tere ndaxte ñu mel ni ñoom ñoo yelloo nguuru yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku woyful ni xale nangu nguuru yàlla doo ci mën na dugg noonu yeesu leewu leen teg leen ay loxoom barkeel leen ginnaaw loolu bi yeesu nekkee ci kaw yoon wi di dem am ku daw sukk ci kanamam ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ngir am wàll ci dund gu jeex gi yéesu tontu ko lu tax nga wooye ma ku baax ki yàlla rekk a baax xam nga ndigal yi bul boom bul njaaloo bul sàcc bul seede lu dul dëgg bul nangu alalu jàmbur teralal sa ndey ak sa baay waa ji ne ko kilifa gi loolu lépp sàmm naa ko li dale ci sama ndaw ba tey noonu Yeesu xool ko am cofeel ci moom mu ne ko lenn rekk moo la dese demal jaay li nga am may ko miskin yi te dinga woomle ci asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man waaye ci wax jooju xar kanamam lëndëm mu jóge fa ak tiis ndaxte ku bari woon alal la noonu yeesu xool taalibe yi ko wër ne leen boroom alal dugg ci nguur yàlla lu jafe ngoogu wax jooju nag daldi jaaxal taalibe yi lool waaye yeesu neeti leen samay xarit dugg ci nguur yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb boroom alal dugg ci nguur yàlla wax jooju gën a tee jaaxal taalibe ya ñu naan ci seen biir kon nag ku mën a mucc noonu yéesu xool leen naan loolu tëna nit waaye tëwul yàlla yàlla mën na lépp ci kaw loolu piyeer daldi ko ne nun dey dëddu nañu lépp te topp la yeesu tontu ko ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku dëddu kër doomu ndey yu góor walla yu jigéen ndey walla baay doom walla suuf ndax man ak xabaar bu baax bi dinga am tey ji téeméeri yoon ay kër doomi ndey yu góor ak yu jigéen ndey doom ak suuf ñoom ak ay fitnaay noon te ëllëg nga am dund gu jeex waaye ñu bari ci ñi jiitu ñooy mujj ñi mujj ñooy jiitu ji ginnaaw loolu ñu ànd jëm yerusalem yéesu jiitu taalibe yi am njàqare te ñi ci topp tiit noonu yeesu woowaat fukk ak ñaar ña ci wet xamal leen li nar a xew ci mbiram mu ne leen noo ngi dem yerusalem te des na jébbal doomi nit ki ci loxoy saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee jébbal ko ñi dul yawut ñu ñaawal ko tifli ci kawam dóor ko ay yar rey ko waaye ginnaaw ñetti fan dina dekki ginnaaw loolu saak ak yowaana doomi sebede ñëw ci yeesu ñu ne ko kilifa gi danoo bëggoon nga may nu li ñu lay ñaan yeesu tontu leen lu ngeen bëggoon ma may leen ko ñu ne ko bés boo soloo sa ndam nga may nu nu toog kii ci sa ndijoor kii ci sa càmmooñ waaye yeesu tontu leen xamuleen li ngeen di ñaan ndax man ngeen a naan kaasu naqar bi may naan ndax man ngeen a sóobu ci metit yi ma nar a sóobu ñu ne ko waaw man nanu ko noonu yeesu ne leen dingeen naan kaasu naqar bi may naan tey sóobu ci metit yi ma nar a waaye toog ci sama ndejoor mbaa sama càmmooñ du man maa koy maye ñi ñi ko waajal rekk ko yelloo bi nga xamee ni fukki taalibe ya ca des dégg nañu loolu ñu daldi mere saak ak yowaana waaye yeesu woo leen naan xam ngeen ne ci xeeti àddina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 bi loolu wéyee ñu agsi ci dëkku yeriko bi ko yeesu di génn ànd ak taalibe ya ak mbooloo mu xaw a bari am gumba gu tudd bartime liy tekki doomu time toog ci wetu yoon wi di yalwaan noonu mu dégg ne yeesu nasaret moo fay romb mu daldi yuuxu naan yërëm ma yow setu daawuda bi ci kaw loolu ñu bari gëdd ko ngir mu noppi teewul mu gën a yuuxu naan yow sëtu daawuda bi yërëm ma noonu yeesu taxaw daldi ne woo leen ko ñu woo nag gumba gi ne ko na sa xel dal jógal mi ngi lay woo bi mu ko déggee mu sànni malaanam ne bëreet dem ci yeesu yeesu ne ko loo bëggan ma defal la ko gumba gi tontu ko kilifa gi dama bëgg a gis noonu yeesu ne ko demal ci jàmm sa ngëm faj na la ci saa si gumba gi gis daldi topp yéesu ci yoon wi